bi boobu ma wax li ma bëgg a wax maa daaw lu mu teexati dal wéru ko ma doon wan sama yéene rek wan ko ne ko ni ma def xam naa ndax man ñàkk ma fay la waye liwu ma man ma di jàppee xam naa ko moom kon maam yàlla yàlla guddal sa barke bi sallallahu alayhi wa sallam nit ko wax lépp ci moom lu ko dal ci at mi yaa ko teg liñ xam yow liñ ko wax mukk yàlla yàlla sàmm leen. Thiénaba TV mooy suñu télé. Thiénaba TV mooy suñu télé. Thiénaba TV mooy suñu télé. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa taala wa barakaatu. ngi leen di nuyoo nuyoob islaam. sëriñ baa ngi nuyu ñëpp nuyub islaam. tukkee ci sëriñ Canaba. tukkee ci sëriñ Canaba. sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck. yàlla na ko yàgg a war. yàlla na ko yàgg a war. yàlla na ko yàgg gën a man waaye yàlla na ko gën a man yàlla na ko yàlla bàyyee xelam. yàlla na ko yàlla bàyyee ak xelam. dolli wéram. yàlla na yàlla dolli wéram. yàlla na dollee guddal aw fanam. yàlla na yàlla dollee guddal aw fanam. yàlla na yokku wërsëgam. yàlla na sa borom yokku wërsëgam. kilifa la goo xam ni. kilifa la goo xam ni. bu dara doon fees tuñ suñu bët. bu dara doon fees suñu bët. ci kilifa. ci kilifa. ñu ni moom la. ñu ni mooma. ndax yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa la toogal. la toogal. kookoo fees. kookoo fees. dënn jullit ñëpp. dënn jullit yëpp. rawati bët. rawatina bët. mu bokk ci ñi ko toogal. ci kaw suuf. ngir ni am na dono bi. ngir ni am na dono bi. muy kër seexu canaba. muy kër seexu canaba. waaye bu ci bokkul woon itam. waaye jomi boppam. jomi boppam. fullay boppam. fullay boppam. ngoruk boppam. ngoruk boppam. paspasu boppam. boppam. jox na ko. jox na ko. li amoon ba sos tariixa. ba sos tariixa. wala dimbali. wala dimbali. Cheikh na Ahmad Tidiane. Cheikh Seydi Ahmad Tidiane. ci tariixa bi ci tariixa bi. bokk ci muqaddam yi nga xam ni. bokk ci muqaddam yi nga xam ni. ëllëg. ëllëg ñi alquran di wax ni ñi alquran di wax ni yow ma nadduhu yow ma nadduhu unaasin bi imaamihim bi imaamihim maam Amari maam Ahmadu Ndaak Seck ku bokk ci moom ëllëg ku bokk ci moom ëllëg topp ci moom topp ci moom ëllëg nu ni la ëllëg nu ni la sa imaam sa imaam ci lañ lay atte ci lañ lay atte yow ab sir yow bégal bégal te xam ni te xam ni àjjana rek àjjana rek mooy sak pay mooy sak pay lu tax lan moo tax bu boobaa luy lay wi. su boobaa lan mooy lay wi. mooy sama imaam de. mooy sama imaama de. amoon na lépp àdduna. muy suuf. muy suuf. di alal. di alal. di njaboot. di mbooloo. di mbooloo. di xam-xam. di xam-xam. di jàmm. di jàmm. ba man koo jëfe ba man koo jëfe man koo dunde na mu ko bëggee na mu ko bëggee waaye islam. waaye islam. ki nga xamante ni. ki nga xamante ni. moom la alquran di wax ni. moom la alquran di wax ni. inna diina. inna diina. inda allahi al islam inda allahi al islam. wa man yabtaxi. wa man yabtaxi. xayra al islam diinan. falan yuqbal minhu. falan yuqbal minhu. wa huwa fi l axirati. min al xaasiriin. kon loolooy li wér. kon loolu mooy li wér. muy islam. muy islam. nga ni bu boobaa. nga ni bu boobaa. islam joojuude. islam joojuude. nga xam ni moom la sunu borom joxoon. nga xam ni moom la sunu borom joxoon. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamee ni ginnaaw bi nga xamee ni ñeenti téeméeri junni yonent téeméeri junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent ak ñaar fukki junni ak ñeent jaar nañu fi jaar nañu fi ku ne yorub message kenn ku ne yor am message ñu yónni la ci aw xeet ñu yónni la ci aw nga nab nabi ca nga nab nabi ca la nga ak la ba jeexal ba jeexal ñooñu ñëpp nag ñooñu ñëpp nag bi yonent bi dikkee bi yàlla Muhammad dikkee moom dañ ko doon xàllal rek dañ ko yooyu yëpp mu ci ñoom rek. kenn ku nga ci yonent bi moom nag mu dikk moom borom place borom ni ko dootuma yónni kenn. sunu message bi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yoroon. message bi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yoroon. yëf yi des. yëf yi des. yow yaa ko yore yow. yow yaa ko yore mennum yow. war leen a war leen a wuutu ñoom ñëpp. ku mu ci sa place. ku mu ci sa place. xeet yi fi weesu. ku mu saw xeet. ku mu saw xeet. déggaloon la déggaloon la. wala ñàkk laa déggal wala ñàkk laa déggal. saw xeet yow saw xeet. nuñ mën di mel nuñu mën a mel. ñoo gën ñooñu ñoo gën xeet yooya. kuntum xayra ummatin kuntum xayra ummatin. uxrijat linnaas uxrijat linnaas lan moo tax lan moo tax. ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billahi yonent boobu nag yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee. bu ëllëgee. loolu ko sunu borom yónni woon. loolu ko sunu borom yónni woon. mu jëf ca loo xam ni. mu jëf ca loo xam ni. réussite bi mu ci am. réussite bi ci am. nit musu koo am. nit musu ko am. te nit dootu ko am. أعد نظرا في الخلق أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه تعلم بأنه كأحمد لم ينسى كأحمد لم ينسى ولا هو ينسى ولا هو ينسى borom ibnu muhayyib nee na borom ibnu muhayyib nee na booy def defle booy def defle ndax yàlla amati na ndax yàlla amati na ku mel ni yonent ku mel ni yonent bi wala da koo musa am wala da koo musa am lu jiitu yonent bi lu jiitu moom muy ñëw nee na dellool sab gis nee na yow dellool sab gis-gis ci jaam yi ci jaam yi kon dina la wér ni kon dina la wér ni musta am ku mel ni yonent bi kenn kenn musta ñëw mel ni moom. te keneen dootul ñëw te keneen it dootul ñëw mel ni moom. nga ni nag islam boobu mu doon doxal. nga ni nag islam boobu mu doon doxal. maam Amari Ndaak. maam bi mu ginna bi fi wuutoo yeneen. bi mu fi wuutoo yeneen ci bi. jàmm jooju dikkal ko. jàmm jooju dikkal ko. di njaboot. ci njaboot. di doole. di doole. di alal. di alal. di xam-xam. di xam-xam. di dëkkub boppam. di dëkkub mu mënoon a toog ni faax. a toog ni faax. ne ci jàmmam. ne te ëllëg te ëllëg day amu yiw. day amu yiw de. dem aljana. waaye mu ni loolu doyul. ndax dogoom. ndax dogoom. ndax fi mu toll moom na loolu xeeb yëgatul woon yàlla rek la woon njaboot yëgatul njaboot yàlla yàlla rek alal yàlla rek la yëg moom gis na ni moom gis na lenn lu dul yàlla amut lenn amut lu dul yàlla lu dul yàlla kenn la ko jox kenn la ko ku cëru rek ku ci nga séddu mu ni nag fexe. mu ne nag fexe. dina fexe. dina fexe. ba ku ko topp. ba ku ko topp. cëru ci. cëru ci. ba mel ni moom. ba mel ni moom. mu ni ñokket jóg. mu ne ñokket jóg. war fasam. war fasam. jéggal soxna ya. jéggal soxna ya. tas daara ya. tas daara ja. yàlla yabal leen ci yeneen i daara. yabal leen ci yeneen i daara. dénkaane tuut tànk yi dénkaane tuut tànk yi. gental dëkk ba gental dëkk ba. wuti fuuta. wuti fuuta. ku muy fekki. kan lay fekki. mooy ki ñu tudde bis bi tey mooy ki ñu tudde bis bi tey. muy maam Seexu Ahmad ndax sëtam lañ ko tudde ndax teewal lu mu doon wuti ci moom lan la doon wuti ca moom islaam bi ñu bëgg a néewal doole islaam bi ñu bëgg a néewal doole du néewal doole kenn te day sax te a defee ni yonent bi dafay jóg nee na yonent bi dafay jub. du dee mukk du tuxu du randu du randu tey fi gën a ne. tey la fi Muhammad gën a maam seexu nii. moom maam seexu nii. moom maam seexu nii. ñaar nii. moom maam seexu nii. moom maam seexu nii. ba dexu. ba ci dexu penku gi gëndaloo gëndaloo ak dexu saw gi ak dexu saw rasulullahi. ñani woon duñ ko fi waxe kenn du ko randu ñu koy wax randu ñu ko fi waxe te kenn mënu ci dara loolu mooy ndono. loolu mooy ndono. moo tax barki Demba Ndiaye. moo tax premier ministre bi mu ñëwee. Thiénaba premier ministre bi mu ñëwee Thiénaba. seet si Baye Cheikh. seet mani ko ci saal bi. mani ci saal bi. wér na la wér na ak ñun ñii toog. ak ñun ñii kun ci joxoon kaamil. kun ci joxoon kaamil. wóolu ngaa tàpp ni. wóolu sa loxo ci. buñ ni woon Baye mii. lii gaa yi xëccoo. gaa yi la république ku ne bëgg ko. na la ni ku ne wóor ngaa door sa loxo ku kaamil. ni ko ni woon mu ngi nii. ne ko ni woon Baye Cheikh mi ngi nii. mu puusaat leen ko mu ngir sees bi mu toogee ngir sees bi mu lu waral loolu lan moo waral loolu. sees bi mu toogee sees bi sees yëpp muy seesu rasulilah bi mu toog sallallahu alayhi wa sallam. wa fii kulli xayrin. wa fii kulli xayrin. jumlatan jumlatan. balaxal ma sees bu ngeen seen rek. sees bu ngeen mën a seen. ak lu mu tedd tedd. ak lu sees ba ci seenum xel. ci seenum xel. ak seen bët. ak seen bët. la ngeen gisul. la ngeen gisul. seen xel daju ko. seen xel daju ko. baa fa ne bu boobaa nag. nga ni maam Amari Ndaak mi ma toppoon nga ni maam Amadu ma toppoon. te yow sunu borom. te yow nga ni yéen ñii. nga ni yéen ñii. ku ki nga toppoon. ku atte. laay atte. mu yóbbaale la géew. ne la yow géew. nga ni kii laa toppoon man ah man kii laa toppoon de. moo jëloon deretam moo jëloon deretam ak bakkanam ak bakkanam jaay ko jaay ko. te inna allah astara min almuminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna sunu borom day waxantu sunu borom day wax ni. day waxantu ndax. ndax déedéet déedéet. kon ñun ñëpp nañu am pas-pas. kon ñun ñëpp nañu am pas-pas. ak kóoluteef. ak bu wér ci ni. bu wér ci ni. ku sa pas-pas déngi déngiwul. ku ci fi ko fas. muy kër maam Seexu Canaba. muy kër maam Seexu Canaba. te kër mooy mooy kër maam Seexu Amadou. te kër ak ëllëg. ak ëllëg ndam. ndam ak aljana rek. ak allah ku déngi déngee nag. loo ñàkk tey. loo ëllëg. yaa ko xañ sa bopp waaye yàlla bum nu dal. yàlla ci yàlla def sunu muur ñu ngi jaale. ñoo ngi jaale. sunu mbokku jullit yi suñu faatu barki Dembo Ndiaye yi ñu fekk leen ci barab bu yàlla ñu ñuy jaamoo yàlla. roose leen ay bal ñu nekk ay sahid ñu nekk ay sahid. te sunu boroom te sunu borom. wax ni wax ni. man xatala nafsan man xatala nafsan. bi xayri nafsin bi xayri nafsin. ka annama xatala naas ka annama xatala naasa. jamian wa man axyaaha innama ahya ku rey benn bakkan rek ku rey benn daa rey bakkan te tey ko ñu war koo mu nekk ci suuf si wala di koy yàq di mel na ni yow adduna bépp nga rey mel na ni ku dundal doomu aadama ku dundal doomu aadama ni mu mele ni ni dundal nga ñëpp dundal kon ki def loolu kon ki def yal na yàlla muccal ci yàlla muccal ci jëfam waaye ñoom ñi ko def ñi ñu ko def itam sunu borom wax na ni sunu borom wax na ni ku génne sa ku génne sa kër te ba ngay génn te ba ngay génn pas-pasu jihaad ci yàlla jëmale ci ba dee dab la ca yow am nga uh, uh, fayuk yàlla yow am nga fayuk yàlla bu la ñeel te wóor na ni yàlla borom njëggal la borom yërmande kado boobu la leen jox wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allah muhaajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul mawt faqad waqaa ajran ajran ala llahi wa kaana allahu xafuran rahiman yàlla nañ ko muurloo yàlla yi yàgg na toogaay yi message yi fi jàll nit ñi sax mënatuñ koo teewlu ngir ay njariñ yu bari kon dañuy tënk suñu kàddu foofu suñu kàddu di wax maam Amari di wax ni sa way bég na sa way bég na wér na la wér na la ni jotaay yu mu dem bëreetul nii waaye gis na ngay ndaw ay te jotaay yi mu doon def suuxat na leen ba ñu deg mu ni lu lu ma nekk nekk seen kilifa dinaa suuxati maam Amari ba mu deg moom itam lii rekk ko andi nee na bis ni ki tey jox na la ijaasa bu maam Ahmadou Ndak ku nekkati Pikine Pikine wala Dakar yéen taalibe yi bi waxal ku nekk ci Pikine wala Dakar soxla tariixa bi muy salaatal faatihi maama ngi nii maama na ko càmbar na ko ci biir ci biir ak ci ak ci mu doy ci sëkk sa ijaasa maam sa ijaasa loxo jox nañu ndigal boo ñëwee boo ñëwee ñu teg ko bi teg sa loxo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa